accompagné de M. Mansour Sy, conseil spécial du président Cheikh Alassane Sen. Donc, au nom du président Cheikh Alassane Sen, président de la grande coalition Jami Réumi, également président de la fondation Sallallahu ala Muhammad, et moi-même en tant que mandataire national, euh, remettre ces dons que nous venons de voir, euh, que le président a bien voulu mettre à la de chaque fête religieuse, à la disposition des, de ces centres pénitentiaires. Pour avoir lui-même été arrêté et condamné injustement, arbitrairement, il a eu à connaître les rigueurs carcérales. Et c'est la raison pour laquelle, à la veille de chaque fête de l'Aïd el Fitr, il tient à ce que ces provisions soient amenées ici. Euh, le président Cheikh Alassane Sen a aussi au cœur de son vaste programme politique un ambitieux projet qui consiste à transformer ce haut lieu de privation de liberté, je vous parlais du, de la prison du 100 mètres carrés, en un haut lieu de gagne-pain à travers euh, la mise en place euh, de cette institution qui sera dénommée Kerkoch avec le, avec le cartable du premier emploi. Et ce projet va définitivement résoudre la problématique de l'emploi des jeunes au Sénégal. Euh, je voudrais également profiter de cette occasion euh, pour dire que euh, la fête de l'Aïd el Fitr est une fête de, de compassion, de retrouvailles, de communion. Et vous imaginez la détresse, la de la personne euh, qui la passe loin de son domicile. Je vous dis une personne qui est dans les liens de la prévention. Et le président connaissant cette mentalité qui doit habiter actuellement ses pensionnaires,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 ak cawarte bu wér euh, defati li nga xamante ni le président Cheikh Alassane Sène du président de la coalition Jàmmi réew mi 2024 mu sell mi comme ni mu koy defee saa dans son vaste programme social mu yebal ñu ma ànd sama collègue El Hadj Bounama Sow médiateur national man seen xarit El Hadj Mansour Sy di conseil spécial et vice-coordinateur national de la coalition ñu indi comme ay nag ak ay dund ak euh, xeetu ndimbal yu mucc ayib ndax président Cheikh Alassane Sène ku ko xam-xam ni yonent bi rek lay roy sallallahu alayhi waaye it ku ko xam-xam ni réew mi mu nekk ci jàmm waaye jàmm jooju def ko lawal ci réew mi ci ndaw ñi ci jigéen ñi ci ñi feebar ak ñi caabi féete ginnaaw mu ngi leen di bàyyi xel à longueur d'année képp ku xam président Cheikh Alassane Sène xam ne nit koo xamante ni c'est un homme de partage comme weer wu sell wii ñu ne ñu ngi naan suba mooy korité wala gannaaw suba mu ne du dem balaa weer wu sell wi di tàggatoo faw mu ñëw indi ndimbalam ci li ko suñu borom may ndax yonent bi mooy séddale waaye sallallahu alayhi wa moom ko sédd ne daf koy delloowaat ci askan wi looloo waral tey suñu teewaay ñu ñëw fii ci camp pénal indil leen comme ni ñu koy defee ci événement bu am à longueur d'année ñu jóge léegi ci suñu mbokk yi nekk rëbës yebal yóbbu leen fa nag bu rëy yóbbu leen fa ay pomme de terre ay soble ay macaroni ay vermicelle lépp rek nee na pour ñu bernde ndax incha allahu taala ak lu mën a xew dafay ñoom dañoo bokk ci askan wi te président Cheikh Alassane Sène se veut être le père de la nation au soir du 25 février 2024 incha allahu taala